aussi est-ce que du am dëgg ci seen kaw bu ñu xamee tamit ne frontière bi fi nekk nii y trop de laisser aller ba gis nañu la fois passée ministre de l'intérieur yenn dogal yu mu pour génne yenn étranger yi. lépp si Ousmane Sonko Ousmane Sonko wax ko ci moom. parce que démb tamit ku déglu Ousmane Sonko li mu wax si wàllu woowee gàtt na gàtt koo xam ne. boo ko jëlee ak li Tahirou Sarr développé dafa naa ne Tahirou Sarr fi mu yegg Ousmane Sonko yeggu fa et c'est lui qui essaie li mu wax yëpp defe naa ni si kàddu si nangam nangam ak fi mu bëgg jëmale moom itam il s'est senti peut-être euh, ciblé il fallait quand même que mu reconvaincre xëy na électorat bi nga xam ne gëmoon na li nga xam ne mu ngi ko doon prôné en termes de nationalisme alors que dëgg-dëgg euh, ñun xam nañ ko nous sommes un pays sous-développé tey jii ne marge d'erreur yi si si wàllu statistique mais dafay dafay yaatu bien vrai que pourcentage yi gën na wàññeeku mais quand même marge d'erreur yi yaa ngi fi ba tey je dois rappeler une chose encore une fois gis nga xam ñaata étranger moo fi nekk yoon la mais n'oublions pas que parmi nous il a des citoyens de la CEMAC tey jii li nga mën a def mooy appliquer la réciprocité appliquer la réciprocité bu dee Gabon sénégalais ba fa nekk dañ ko imposer carte de séjour yow tamit nga imposer carte de séjour Cameroun bi bu dee noonu la nga def ko noonu defe naa réciprocité la mais CEDEAO ce n'est pas possible c'est la libre circulation des biens des personnes tey jii nii ñu ngi wax waxu euh, ñooñu fi nekk xamuñu ñaata lañu 4 millions lañu 3 millions ñaata ñoo si am nationalité def naa ne loolu moo gën a mat a bàyyi xel pour ñu xamee ko noonu quand tu vas en Côte d'Ivoire y a combien de Sénégalais qui vivent en Côte d'Ivoire quand tu vas quand tu rentres à, à Treichville mais c'est le quartier le plus sénégalisé de la Côte d'Ivoire quand tu vas à Bamako c'est combien de Sénégalais qui vivent à Bamako avant la crise peut-être que jamono ji avec la crise ñi am na ñoo xam ne ils ont migré au Burkina et en Côte d'Ivoire a un super gros quartier qui se trouve à Bamako qui s'appelle Wolofo-Bougou le quartier des Wolofs Wolofo-Bougou c'est combien de Sénégalais qui habitent là-bas ñoo xam ne Wolof la Séeréer la Joola la qui sont là-bas ceux-là qui sont artisans pour la majorité en Côte d'Ivoire et au Mali couturiers bijoutiers euh, cordonniers etc etc ce sont tous des Sénégalais ba léegi ñooñu tamit au nom de ce nationalisme là est-ce que il faut il faudra les extirper du Mali et les Sénégal il faudra les extirper de la Côte d'Ivoire et les renvoyer au Sénégal Tchad bu muy bu muy waaj a toj avec le coup d'État bi ñu naan CEDEAO day waaj songu Tchad c'est comme est forte communauté sénégalaise qui vit à N'Djamena c'est comme su fekkoon ni ñun daal Sénégal nous sommes une exception en Afrique de l'Ouest non étranger bu nañu xam ñaata ñoo fi nekk ñaa xam ne oui nos frontières sont poreuses ça c'est clair parce que peut-être que nous n'avons pas moyens pour mën a contrôler l'ensemble de nos frontières si luy dugg ak luy génn mais France lu dugg lu génn waaw mais tey nii c'est combien de citoyens de l'Union européenne ñoo dugg France c'est combien de il faut voir les statistiques pour nga mën a xam ñaata européens ñoo ñoo dugg Australie di fa dund ñaata français aujourd'hui ñoo migré au Canada di fa dund tu vois donc nous dans un gis nga la migration la migration elle est même encadrée par des lois internationales elle est même par des lois internationales que ñun dañoo nekk pays développé et on a on a la malchance d'être en Afrique moo tax yu bari yoo xam ne mënuñu ko. pour véritablement mën a euh, euh, euh, instaurer loo xam ne en termes de migration daañu facilité aujourd'hui y a même des espagnols yoo xam ne dañuy jógee Espagne di migrer au des espagnols qui aujourd'hui migrent au Maroc émigrent au loolu il faut ñu tenir ci compte maintenant je suis d'accord pour ñu créer des garde-fous xool yan dëkk ñu ñu imposer li nga xam ne moo di carte de séjour ñu imposer ko seen seen concitoyens yi man sama oto bii mën naa ko taal daw ba mu bamu ko. avec mon permis parce qu'on parle jamono ji dañuy migrer sax vers le permis la CEDEAO c'est le passeport de la CEDEAO c'est la carte d'identité de la CEDEAO waaw léegi lu ñu bëggati voilà donc Tahirou encore une fois ce euh, discours tey mën na moo tax ma ne nationalisme ça doit être une vision globale ça doit être une vision globale mais national mënoo def campagne pure dure dugg ci politique pure dure engagé wu dure pour véritablement une question liée aux étrangers. C'est-à-dire qu'il faut jouer au loolu mais comme tu pas une vision économique, tu pas une vision sociale, tu n'as pas une vision en termes d'exploitation des ressources, en termes d'infrastructure, en termes d'agriculture, rien du tout. Toi, tu seul discours, ton discours est basé sur notamment les étrangers. Mais ça fausse tout. On ne peut pas construire la politique sur un seul sujet. étymologiquement c'est l'art de gérer la cité et quand on de la bonne gestion de la cité éducation ci la bokk enseignement ci la bokk les bonnes mœurs ci la bokk les bonnes pratiques ci la bokk la bonne gouvernance ci la bokk yaa ngi la création de richesse ci la bokk le développement de la de du secteur privé ci la bokk et cetera et cetera donc il faut nga am gis-gis gu yaatu te boo demoon nga ne wallaay waat su ma demoon assemblée nationale nangam mais écoute le député n'a qu'un seul rôle c'est moo tax dinaan proposition de loi mais quand la loi même et votée la loi n'est appliquée que si elle est promulguée et qui a le de promulgation c'est le président de la république donc dafa may amalgame yu bari yoo xam ne da nga koy da koy dégg te mën nga ko soulever dans son dans ses dans ses différents discours oui nous voulons bien que ñu garder benn ligne gën a surveiller liy dugg si dugg si dëkk di dugg si Sénégal mais tey jii bu fekk ni Amérique lu mu munti munti munti mel tey jii nii Trump tiit ñëpp tiit nañu mais Trump ne peut pas euh, renvoyer tous ces migrants sans pied cest dire que parce que tey président Amérique lu mu am am doole day day jël décision un juge d'un état na ko àndu na ko ñett su su boobaa du dem Barack Obama son père vient d'où du Ghana nest pas il n'a pas été président des États-Unis d'Amérique hmm? tey jii en terme de de de de de nationalisme America the first America make great again yaa ngi dégg tey jii nii Giorgia Meloni bu Italie moo gën a nekk fasciste koo gis moom bañ nañ ko sax dañoo dañuy ne c'est l'héritière du Duce c'est l'héritière du Duce autrement dit Mussolini bi nga xam ne moo incarné li nga xam ne mooy le fascisme pur et dur en Italie par de par ses positions. et pourtant c'est combien de Sénégalais qui sont euh, Thioro en Italie am ah, te ñu fa nekk sans papier bari nañ de mais John Diamé la jusqu'au moment euh, depuis qu'elle lan la jël si décision boo xam ne dafay day jàpp Sénégalais ñuy génne di dàq di yóbbu parce que tamit dugg si dëkk oui mais génne dëkk bi tamit du loo xam ne ça se prend du jour au lendemain mhm. tey jii mën nañ la convoquer États-Unis nous sommes en 2000 en novembre 2024 tu peux avoir rendez-vous avec le donc pour dire rek que moom Tahirou d' accord mun nga défendre am na loo gëm c' est ta vision et man dama dama nangu nit nit dafa war a am vision dafa war a am vision je partage véritablement yaa ngi dégg mais je dis encore une fois mënoo ko limiter rien sur ce sur ce sujet là c' est à dire que vraiment na jaay lu yaatu Sénégal yi pour Sénégal yi am njëkk mën kaa jënd. Mm-hmm. defe foofu tamit euh, il faut quand même ñu rappeler ko si si fànn mu limité oui ou non mais est aussi duñu wax ne tamit Sonko wala benn tamit ci Pastef moo génn tey bu ko déggee tey ci ni mu waxee parce nee na dafa liir li nga xam ne tey moom euh, moom combat bi muy mëne euh, gis na ko ci programme boobu mais aussi référentiel bi gisul benn yoon combat bi muy mëne mu. am ci biir référentiel bi alors que daan na ànd ak Ousmane Sonko ci ay combat bu ñuy wax tey jii patriotisme aussi euh, ci benn ci ban fànn. ah xam nga moom fan la naxee boppam. Hmm. comment peut-on si bi yow ngay say lire panafricanisme ba pare bëgg a andi l'idée du nationalisme. mënul nekk. c'est contradictoire. Hmm. ceux-là qui du pays. Hmm. ont toujours revendiqué le panafricanisme. Sonko bu ñu sax si ginnaawam photo Lumumba la ak photo Thomas Sankara il puise chez Jomo Kenyatta il puise chez Kwame Nkrumah mm-hmm. donc panafricanisme moo di les États-Unis d'Afrique à moindre coût boo mënul yegg si sur les États-Unis d'Afrique si tu as une vision minimaliste mm-hmm. véritablement mën nga sax dem par bloc mais quand tu as une vision maximaliste tu peux véritablement penser un bloc parlant de la région Afrique mais mënoo tey prôné nationalisme euh, panafricanisme ba pare di di di di am nationalisme loo xam ne da ngay beddi ay doomu aadama c'est que ce serait donc moom su dee li mu doon xeex gën na ko comme ni mu ko waxee maa yàgg naa xeex gisuma lii gisuma lii da ngay wéy si xeex bi pour véritablement gars yi si biir xeex bi boole la ci par rapport ak yow li nga xam ne yaa ngi koy prôné en termes de revendication que tu juges gis nga politique sans ce n'est pas une décision que l'on prend parce que on a un problème à régler mm. la politique également ce n'est pas de l'intelligence pure et dure c'est une réflexion spontanée mais active sinon mm-hmm. ñuy ëpp yi gënoon ëpp xam-xam ci Sénégal bi kon ful bi Ousmane Sonko di drainer wala Abdoulaye Wade doon ko drainer ay jamono ñoom ñu dra ñoom ñu drainer ful boobu tey jii nii Cheikh Anta il a pratiqué la politique peut-être qu'il n'a qu pas été bien compris Majhemout Diop il a pratiqué la politique dans ce pays-là euh, euh, premier secrétaire général du parti de l'indépendance du travail PIT bi nga xam ne moom la Amath Dansokho wutu mais c'était c'était une matière grise boo xam ne mais mara bee musiba comba te pourtant nekku woon des personnalités de masse yoru ñoon des partis de masse donc de ce point de vue là Tahirou c'est un jeune prognose politique mu ngi xeex yàgg ne xeex injustice il faut lui dire bravo pour ce combat mais même il faut lui dire d'élargir son son champ de vision et de réflexion te kooku moom kooku ko waxu parce que damay déglu ne non attention il risque de faire mal comme oui Sénégalais yu bëri tey ñu ngi jóg parce que xëy na gis nañu ni non ñii bu ñu bàyyee si kanam tuuti est-ce que duñu ñu ëpp et cetera et cetera mais aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui les blancs ñi ngi xaw a tiit parce que. selon les prévisions si kanam tuuti les minorités vont devenir majoritaires. Hmm. les minorités vont devenir majoritaires et dans ces minorités là da ngay ñaata ñoo si nekk ay origine haïtienne regarde l'une des porte de la Maison Blanche de de Biden euh, euh, euh, Caroline Jean-Pierre. Hmm. elle est d' origine haïtienne elle est d' origine haïtienne donc il faut quand même que ñu xam ni ñun Afrique la nekk. Sénégal war ñu ko protéger war nañ créer garde-fou yi war a gën a mën a maîtriser le flux d'entrée des étrangers mm-hmm. mais cependant aussi bu ñu fàtte di dafa am ñu tënk c'est la libre circulation des biens et des personnes par rapport aux citoyens de la CEDEAO mm-hmm. donc loolu mënoo leen betti mm-hmm. su boobaa nag euh, voilà da ngay dugg si beneen champ boo xam ne coroo da ngay gis loo xam ne moom loo ko te su boobaa tamit buñ ko buñ buñ ko appliqué sa sa doomi réew yi nekk si réew yooyu dina nekk mbir boo xam ne lu jafe lay doon. d'accord euh, Diouf bu ñu taxawee ci wàllu politique ak euh, wax naa ko léegi li ci xew ak yeneen yu ni mel démb Ousmane Sonko comme ni ko Mbow waxee léegi daanaka wax na